bi ñu ñëwee euh, dañ bokk na ci lu ñu njëkk a def mooy gëstu xool projet boobu mooy projet cent mille logements ndax projet bi am na ay résultats nañ ko yore woon ndax baax na euh, ñu gis ne euh, projet bi maanaam naam état bi jëloon na ay engagement jël na ay dispositions maanaam taxawaay ay kuréel yu am solo pour que projet boobu ñu mën ko jëmmal mais malheureusement dañoo gis ne résultats yi ñu doon xaar amuñu ko Euh, loolu nag mu doon lu nga xam ne lu ñu bett la euh, ci loolu nag la ñuy organiser benn lël ñu ngi ko organiser Somone dajale fa euh, ñi nga xam ne ñoo bokk ci ci ministère bi ñëpp ñu ñëw waxtaan ñu def évaluation aussi génne ay yeneen xalaat yu nga xam ne xalaat yu bees la beneen doxalin bu bees bu nga xam ne buñ ko valider dana permettre ñu mën a maanaam projet bi nga xam ne moom la ñu waxoon xëj na gaa duñ ko tuddee cent mille logements mais dana doon euh, projet bu nga xam ne dana méngoog li nga xam ne mooy situation bi fi nekk mooy situation bu nga xam ne gis nañ ne pour nga am dëkkuwaay jafe na euh, loolu dana bokk ci li nga xam ne orientation yi nga xam ne moom la ñuy taxawal mooy fexe ba nga xam ne danañ euh, aménager déjà fi nga xam ne mooy parcelles yi nga xam dañ koy viabilité mais fexe ba nga xam ne aussi nit ñi danañ mën a am kër gu ñu moomal seen bopp mais aussi ñi nga xam ne dañoo bëgg a louer aussi euh, ñu may leen ba nga xam ne danañ def disposition boo xam ne dañuy tabax ay kër à travers société yi nga xam ne mooy HLM mooy SICAP mais aussi yeneen sociétés yi nga xam ne ay société promoteur privé leen état bi accompagner leen euh, ba tax ñu mën def ay offres yi nga xam ne marché du logement danañ ko mën a euh, danañ fa mën a tabax tabax yu ba tabax yi sab dina doon ay tabax yu nga xam ne dafay doon ay logements sociaux yu nga xam ne dafay doon aussi euh, dafay doon construction standing construction économique pavillonnaire loolu yëpp ay offres la yoo xam ne dana permettre déjà ñu xam ne am nañ gap bu métti bu nga xam ne toll na ci maanaam téeméeri junne mën nañ ko wax noon si wolof cinq cent mille euh, logements te juróomi téeméeri junne juróomi téeméeri junne logement nga xam ne manqué na te chaque année maanaam at bu jot lu toll ci euh, fanweeri junne ci ci ci logement Euh, dana yokk ci gab mu doon nag gàbbu bu rëy rëy boo xam ne euh, défi bi dafa rëy mu war a tax ñu gën a gën a baral gën a aussi taxaw gën a fulaal li nga xam ne moom la ñu war a def pour que Sénégal yi nga xam ne ñoo soxla logement mën a am dëkkuwaay bu mat sag